Thank you.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 يا همة الشيخ تحضر ما في أسئلة محضر والتبنى بنسبة تأتنا في السفر السلام عليكم بكي جناب تم مسلو سيتانا تم الستر من خير خيوان بنا يب تادنا نيرم جوري رك على خير بولم خاج تانت نيال يالا ميغا خمنا موي بام بنجي خيوان مشي يالا نك سنگ محمد صلى الله عليه وسلم gërmaaneel yàlla yàlla nekk si suñu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ak mboolem xalifaam ak mboolem saxaabaam gërmaaneel yàlla yàlla nekk suñu maam Rajab lay ñas waaw ñëw si téere bi mutahhirul qulub mutali'ul ghuyub bi nga xam ne ñu ngi maam Rajab lay ñas moo ko def ñu si ñu koy jéem di leeral ci wolof suñu kem kàttan suñu xam-xam ah, démb ñu ngi jàngoon faslu bi nga xam ne day xaraamal reju te mooy encens sekkerew bi lu ñu tumboo ci jàmbur ak ayibi jàmbur tey ñuy ñëw si faslu bi nga xam ne fi tahrimil ghibati ci xaraamal jëw jàng nas ba pare dem ci aaya alquran bi ndax lan moy jëw ak lan modul jëw seen kam katna ak seen ko waxtu mune ya ayyuhal muhtab lil insani ya akil akila lahm min al insani mune ay yow mi nga xamne yaay jëw nit yow mi nga xamne yaay lek yàpp nit yow mi jëw nit yaay ki lek yàpp nit ndax loolu ko alxuraan képp ku jëw ni rek mel na ni yaa ngi lekk yàpp fajtani ban maa xarama alqahaaru alwaahidul muhayminu aljabbaaru fajtani ban na nga teet maa xarama nga xam ne xaraamal na ko alqahaaru aji not ji te mooy yàlla alwaahidu kay kenn ay muhayminu ko di aji méngoo mbir yëpp aljabbaaru kay mbëru ah, na nga wattandiku li nga xam ne ki nga xam ne moo not lépp te ñaar kenn amul ñaareel te moo dominé moo tiim yëpp mu xay min mooy moo moo moo yore lépp ci ay loxoom te mooy ki mburu bon indi na ñetti tur yàlla yoo xam ne li mu wane mooy yore gu yàlla yore lépp ci loxoom ba tax na bon te amul keneen ko ñaareel te kenn la amul keneen koo xam ne ji day wax mu koy weddi wala muy mu tëral muy tëral bon nag kooku lu mu danga ko war a xaraamal ndax bu la jàppee kenn kenn ku mën a def intervention ci moom wa alam bi anna kullu man taxtaabuhu kat xaka kullahu lahu tahabuhu mu ne wa xamal ne bi anna kullu man taxtaabuhu nag képp koo xam ne yaa ngi koy eh, jëw kat xaka sa sa coono mu léppam lahoo ñaal na ko wala tahabuhu danga ko may lahoo ñaal ko sa coono bi mooy sa liggéey yëpp moom nga koy may koo xam ne yaa ngi jëw ni rek mel na ni li ngay liggéey ci jëf yu baax yëpp yaa ngi ko koy may ndax bu àllaaxira moom lañ koy faye moo tax amoon ci nit yàlla koo xam ne man su may jëw samay wàjjur laay jëw ndax jëwkat yi ñooy xenukati bàkkaar yi nit ñi wa taaibul xayb wa taaibul fil jinaani yadxulu axiran bi bil imtinaani wataa bi xaybati aju tub ci jëw fil janaa ji na nekk si aljana wala nga ne yaddu xul dana dugg fil jinaan si aljana axiran di aju mujj bil imtinaan rek ci xéewal maanaam mbaax ak yàlla ki nga xam ne dafa jëw bari tuub ko mooy mujj dugg jana te ci mbaax yàlla la ko yàlla dugale bon loolu rek jar na moytandiku euh, jëw ku jëw ba tuub bañ nangul ko tuub bu nit ñi duggal dañ ko taxawal foofu yow ba ñëpp dugg nga door a ومن أبى التوبة كان أولا من يدخل النار فصار مكبرا ومن أبى خم دفا بنا التوبة توب جو دفا دف جو بابا بنا توب كان منك أولا من يدخل النار كن جك دوغال سفر moom بني دوغال سفر safara moom la ñu njëkk dugal safara fa saara tam mujj mu kabaleen di kuñ bon ndax ci kabaay la bokk te bakkaar yu mag ku ko ku ko def ci tuuboo euh, dañ lay mbugal safara nga ne ko lan mooy jëw mu ne waxadduha an yuskaral insaanu fi wasfihi wa xayru saa buxtaanu waxadduha dayob jëw an yuskara mooy ñu tudd al insaan nit ki bi wasfihi ci melokaanaam ba nga xam ne moom la ame waaye fekk neexu ko mooy nga wax nit ki li nekk ci moom te fekk neexu ko wa xayru saa lu dul nag buxtaanu ak duudal la fekkee naa la ngay wax nag dara nekku ci yow danga duudal am nga ñaari bàkkaar bàkkaar ab jiw ak bàkkaar ab duudal ko moo tax mu ne wa najjinaa yaa rabbi min isyaani wa kulli maa yufdi ila nisyaani wa najjinaa yàlla nga ne musal yaa rabbi yow borom suñu min isyaani ci moy lépp say ndigal say tere yàlla nañu yàlla musal si ñu koy ñu koy ñuy def safaan bi yàlla nga ñu musal ci moy wa kullu maa yuf di ak lépp loo xam ne dana yóbbee ila nisiyaan ci fàtte ak lépp loo xam ne day tax ñu fàtte eh, yàlla fàtte yàlla xira fàtte li nga xam ne mooy lu ñu war a lépp luy waral fàtte rek yàlla nga ñu si musal bon lii mooy mm, bunt bi nga xam ne ci xaraam al la muy juróom-ñaari bayt bu ñu xoolee ci aaya bi dum ne walaa yaxtab ñu ne jëw mooy nga tudd waa ji li nekk ci moom su fekkee da ngaa tudd nekkul ci moom mooy duudal comme ni ko maam waxee si bayt bi tam لولو سخنتي حديث صحيح مسلم أبو هريرة نحن دنيو لاجون يونت لاجون صحابي نلان أتدرون ما رغيبا دخم جن لن موي جو منوكو الله ورسوله أعلم من سكروك سكروك أقاك بما يكره موين غواق سنبوك لو خمنا نيخوكو فك نيكو سلو موي جو ñu ne ko waaw bu fekkee ne li ñuy wax dafa nekk ci moom nag mu ne su boobaa euh, da nga koo jëf in kaana fii maa taqul faqad xtabtahu wa in lam yakun faqad baxtahu su fekkee ne li ngay wax mu ngi ci moom da nga koo jëw su fekkee ne nag nekku ci moom da nga koo duulal bon mooy nga tudd ay bi nit ki ci loo xam ne ni waxu ko ci gannaawam ñu ne jëw buñ ko seet dafa am ñetti façon ci téere bi yàlla bi alquran al xiiba ak ifku ak buxtaan ñu ne xiiba mooy lan mooy jëw mooy nga wax ci sa mbokk mi loo xam ne mu ngi ci moom bon yow da koo jëw moo xam ci diinaam la moo xam ci jikkoom la moo xam ci bindam bi la amaa duut nag mooy nga wax li nga xam ne da koo dégg ci moom te yow moo xam nekk na ci moom wala nekku ñoom nga dégg diw diw nangam rek nga ñëw nettali ko boobu yow yaa ci ifk ndax la nga wax moo xam nang sa moom wala xam nekkul sa moom gannaaw si danga toxal rek di ko wax booba yow yaa si ifk loolu mooy duut mooy ifk ama buxtaan nag loolu mooy nga wax ci loo xam ne moom nekkul ci moom nga waxal ko loo xam ne xamul ci boobaa danga koo duudal ñu ne am na ku ñuy wax Muawiya ñu ne mooy ibnu Xurra mu benn waaye romboon loxo bi dagg nga kii de dafa kuuña mu ne bon jëw nga waaw wala kii ah, kii de dafay soox jëw nga ñu ne maïs al aslami mooy ki nga xam ne dafa njaaloo ñëw si yónni ne ko damaa njaaloo jam attel ci man xotteeb yàlla yonent bi ba nga xamee ne seet nañ ba xam ne dofut dara jotu ko ñu xàtte ko jam ko mu ne ñaari gaay nag naan waaye kii daal yàlla nga ko suturaal bu pare moom mu ñëw di di joxe boppam bañ jam ko jam jam jam comme ni xaj mu ne yonent bi na noppi na pat mu ne jox ab diir ñu romb mbaam mu dee ba ba ba ba ngooli tànk ba yonent bi ne ana ñu ngi nii mu ne dem leen wàcc leen ngeen lekk mbaam dem leen ngeen lekk ci mbaam ñu ne ko ah, yow yow yónent yàlla bi kuy lekk li mu leen ah xam ngeen si seen dara mbokk mi ngeen dal moo gën a moo gën a tar lekk mbedd mbaam mi mu ne giñ naa ci nga xam ne sama bakkanam si loxoom moom maïs moom tey fii mu toll nii ma ngi see dexal janna ye di di di nóor ndax tub na tub boo xam ne buñ ko séddale woon àddina bi mu daj leen moo tax alxuraan laaj na ndax da kenn ni bugg na mbokkam dee mu koy lekk loolu kenn bugg ko loolu la ñu jëw mel yonent wax na ne man saama man saama maa saama man sàlla yekkulu lax mu naas lu mu naas maanaam kenn xóoru ki nga xam ne dafa xendoo lekk eh, eh, yàpp nit ñi mooy lan ki xoor ba pare di jëw mu ne kooku xóorul ndax mu ngi lekk ndax moo ne beneen xadis boo xam ne jigéen dañ doon jëw ci weeru koor yoonu si ñëw na leen dem leen ñu ne ko ah ñun lekkuñ dara ñu goto goxoon ay ay morso yàpp di wadd mu ne bañ ko ràññee gisoon na ay ñoo xam ne seen weñ yi dafa seen weñ dafa gudd ba mel ni ay përëm ñu koy xosee seen xarxaam yi ak seen dën yi mu ne Jibril ñi ñan la mu ne ko ñi moy ñi doon lekk yap nit ñi di di dal ci seen der yi yonent wax na ne ku lekk ci benn waay ku ci lekk ci benn julli ak lekk nga dem nekk ci derem nit pour lekk wax rek pour mëna a lekk mu ne ku ko def yàlla dana la lexal ci aljanna lu toll noonu ku xoddoo mbalaan ci waa ci waayu jullit nga xam ne nekk fa di wax ci moom rek pour ñu jox la loo sol mu ne bu yàlla dana ko xoddee lu toll noonu ci jahannam koo xam ne dangaa taxaw ci waaye palaasu déggtu ak njistal yàlla dana taxawal moom dana ko taxawal taxawaayu déggtu ak njistal yow wal am nga xam ne li nga taxaw defoo ko dara danga ko def ngir njistal ak njégatu rek bon gis nga jëw nekk ci nit di wax nit lu neex pour mu defal la dara tax nga nekk fa jëw sa mbokkum jullit su dee lekk la jox danañ la ko jox jahannam su dee mbubb la la jox danañ la jox jaanam lu mu la defal rek danañ la ko defal safara jàngoon nañ démb hadiis bi nga xam ne yéen ñi nga xam ne seen làmm yee gëm te seen xol yi gëmut bu leen jëw seen bopp yi mu gisoon yenn waaye ne yéen maa ngi xeet ak yàpp seen gémm yi de lu ko waroon ñaar ñi dañ dañ doon jëw ñu benn waay ay benn waay nekkoon na ci yoon ba di jóg mel ni tànk yi métti wala loolu muy jóg-jógi am ku ne ah kii de dafa lot yonentu ne lekk ngeen sa yàpp mbokk mi de jëw ngeen ko de gis nga loolu kii de mënta jóg rek jëw la mooy ngeen tudd seen i ayam na ngeen ko moytandiku non ñu ne jëw nag ndax moom dana nekk ci diine wala ci jikku wala ci ci bind wala ci askan waaye ñi ne diine bokku si ñi ne askan waaye nag biñu dana seet ko la nit ki boo ay ayibalee si diinam jëngu ko boo ko ayibalee si askanam jëngu ko boo ko ayibalee soo waxee ayibam ñu nekk ci bindam bi jëngu ko boo waxee ayibam ñu nekk ci jikkoom bi jëngu ko lépp soo ci hadiis saxal nañ ne loolu yëpp mooy jëw ndax dimaakum wa amwaalukum wa araadukum aleykum xaraam la yonentu wax seen deret yi seen alal yi seen der yi lépp dafa xaraam te lool matale na diine ak àddina yépp mu wax ne koo xam ne dangaa am seen mbokk am tooñaa ngi si deram na ko na nga wala xalalam na nga fexe mu jéggal ko fii balaa yowmal xiyaam mu ñëw ndax ku amee kenn si mbokk te te baalulu ko fii ba mu ñëw yomal xëy am bés bi nga xam ne dinaar amu fa dërëm amu fa dañ koy jël si say koo xam ne amul ay xiw ñu jël ko ci ñaawteefu ki nga xam ne moom nga doon jëw jëw euh, li ñu waxoon mooy li maama la joxoon ku jëw say say jëf yu baax dañ koy jox ki ngay jëw ndax bu àllaaxira boo xamul loo ko fay sa jëf yi la ñuy fay àllaaxira moom xaalis amu eh, jëf moo fay moo fay dewis waaw su fekkee ne kii da ko koo jëwoon ah foofa te ku nekk bëgg nga fa tiyaab du ba bale du fa yomb de ndax ku nekk yaa ngi bëgg sa poids mat su ko defee boo ko jéggaloon ba mu jéggal la fii su àllaaxira ay jëf sa jëf yu baax yi lañ koy jëf yu baax yi lañ koy bu jeexalee ay jëf yu baax ñu fab jëf yu bon yi ki nga xam ne moom la doon jëw wàññil ko ko te foofu ku sa jëf ku sa ci jëf yu baax da ngay da ngay dem safar bon nañu moytu jëw ñu ne koo xam ne da ngaa duudal ab jug nag yàlla mu ngi koy yóbbu si tiinul xabal maanaam banab banab safara ni seen fa gën a bon si safara nga xam ne bal jët yaag lay tooy yëpp foofu lañ koy yóbbu nga xam ne ban ban la boo xam ne dafa mel ni betex mu ne foofu la ñuy lakkee ki nga xam ne dafay duudal julli ji koo xam ne nag dem nga tuub bañ jéggal nag yàlla yàlla nangu waaye ñu ne ndax ah, kuy def ay caay-caay moom dañu ko wax ko wax ko ay caay sam jiw la ñu ne déedéet ndax yoon sa ne man alqaa jilbaabal xayaa yi falaa xaybata lahu koo xam ne dangaa sumbi mbalaanam euh, euh, kersa xamoo loo rus lu neex nga def mu ne kooka di wax ay di wax ay bam ci gannaaw loolu dara nekk duñ la considéré jow rawatina nag muy koo xam ne dafa am doole nga xam ne boo ko waxee bu la mën a laa mbugal kooka wax ay ay bu gannaawam loolu du jëw يونتو خاننا اسكروا الفاجر بما فيه كي يحصره الناس دا نغان دي واخ فاجر ساي ساي بي نغان واخ لي نيك دي موم دا نيت ني مانكو مويتو دا بون كو ديف ا مانا لور نيت ني بون لول اب ساي ساي مي واخ اي اي ديو مونا باغا خامني اجاد دا فا ديوون ها حسن واخون نا با ما اجاد دي دا نيو يالا رينغا كو yàlla na nga dog sunnaam yàlla na nga dog sunnaam yàlla na nga dog sunnaam si ñun fi nekk woon yàlla mu continuer ndax dafa ñëwoon di ko gàtt loxo yi bëgge ah, mos na loxo yi mus na ñàkk ci yoonu yàlla da daan peñee kawaram ma mos di di di di tiitaru ci ci ay doxam bu yëgaat mbir ma day coowoo coow ba julli gi faat te kenn du ñemee wax julli gi faat ndax ndax ndax ak bonam mu ne ko loolu ñu leen wax xajaaj noonu du jëw ki nga xam ne tamit dañu koo tooñ ñoo ñëw jëm si kaw ci kalaam bu ndax diwa moo def nangam diwa moom loolu muy wax noonu du jëw nga xam ne ah, wala yow itam ngay seede nga ne ah yaa ko fekkee nga ne diw ko moom kuñ moo ko def lii moo ko def lii wax ay mu ne loolu yow moom jëwoo comme tamit ni yonent waxoon ci Muawiya ak Abu Jaham si ndaw ñëwoon ne ko ñaam ñaar bin maa bëgg Fatimatu bintu Xays moo ko waxoon mu ko doon moytu loolu dëkk moom ne ko ah Muawiya day ko amul dara soxla la laa maala lahu ama Abu Jahal moo xetam bi du si doxam bi moom moom toujours mu ngi xenu eh, kii rek mu ngi xenu ay taxas di di di bon loolu nga xam ne ki nga xam ne la la ki la la laaj si mbir ci mbirum loo xam ne xam nga kii ta dafa dafa concerné dundam da nga xam ci waa ji loo xam ne moom su duggee man na ko indi problème nga wax ko ñu ne loola nga wax duñ ko considéré jëw bon du ko mooy nag jëw moom ci bàkkaar yu mag yi la bokk bàkkaar yu mag nag danga koy tuub ñu ne da koy tuub ba pare balu balu borom bàkkaar la boo xam ne dafa am ñaari parti ndax ci loi dafa am bàkkaar yoo xam day am boo xam ne yoon mi da da koy wàcc ba pare ak borom waaw su la borom baxalee ah su ko defee bu nga dem tuub ci yàlla mën na laa baax waaye bu la borom baxalul nag soo tubee ci yàlla tamit yàlla parce mën na la ko baal waaye nag da nga xamee ni moom foog nga fay ko moo tax euh, nañu moytu di di jëw di wax nit ayibi nit ñi balaa ngay wax ayiba nit seetal say ayib nga nekk ci bon yàlla nañu yàlla musal jëw yàlla nañu yàlla sàmm dimbale ñu defaral suñu jikko yi defar suñu saayir ak suñu baati daraja yonent bi ci barke weeru koor bi yàlla jikko yu rafet mooy defar àddina mooy defaram réew même nit ki bu la bu la bu la bu la tooñee bu jotul ngay wax ay yoon soo ko manee mënee jàkkaarloog moom waxtaan ngeen arrangé bu jeex waaye bul bul wax dara gannaaw ci loo xam ne soo ko woon doo ko ñemee wax loolu bokku ci maanu bokku ci njub yàlla na yàlla defal toog allahumma salli ala